nga xam ne na safoo seen chaîne bi di euh, Saint-Louis TV daleen ak jàmm tey euh, dama am ay gan ay gan yu dëkk ci dëkk bi waaye aussi ay gan yu jugee ci beneen gox ñëw ngir euh, bégal ñi nga xam ñoo di soppe Saint-Louis TV yi donc du si wéer nag amoon naa beneen invité boo xam ne war a nekk si si côté bi mais dafa daw <laughs> ñu ngi koy waxati sax Baye Talla sama jëwriñ maa ngi lay char delloo char bu baax a baax jëwriñ Cheikh Niang maa ngi lay delloo char bu baax wér-wér di rafetlu sa teewaay alhamdulillah ñoy delo sant bu baax baax pense que tay mom soppi mu xaar xalu bari ci yow waaw nan ko waaj lek ndax mbirum buril la dal waaw nay gëna yaatu rek dal barke borom touba inshallah donc euh, sama jëriñ bi ahmed diop sikroula euh joggé ba ba ross ma ngi la ziar waaw jëriñ cheikh delo ziar lu bari ñu ngi lay ziar lu bari di rafetlu teeway bi alhamdulillah ñu ngi sant bu baax

maa ngi bàyyeekoo Ross Béthio mais maa ngi dëkk-dëkk bu ñuy wax Warak réseau de Louga di taalibe Cheikh Ibra Fall waa kër Maam Cheikh mbay waaw. macha allah tey tey tey tey nga jógee Louga ñëw fii ñu nar a waxtaanee euh, ki nga xam ne sa sëriñ waaye tamit nar a bégal nga xam ne ñooy ñooy ñooy soppe yi. Mhm. balaa ñuy dugg ci euh, gars yi gëstu xam yaay kan. Mhm. bëggoon naa xam ki nga tudd léegi muy euh, sëriñ Maam Cheikh mbay mhm. waa maam Cheikh Mbaye moo ngi bokk ci euh, moo ngi dëkk Louga waaw waa kër Baye Jili Mbaye alaaj Jili mbay yaakaar naa Baye Jili mbay ñëpp xam nañ ko waaw ñooñu la. dëgg la tey bu ma la doon bàyyi nga am loo loo loo ñu bi nga xam naa yàkkamti nañ xam ci jóge Louga ñëw ba Ndar lan la leen nar a indi lu muy doon. laa ilaaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah xaadimu rasuulullaay alxamdulillaay ba buur la nekk fee yamal xiyaam yu metti yeeg yu yal cuma ci pada ba dajeeg yu firjana dil firdausi la jataamu ñu la ko di ñaan la ilaha ilalau mam xaadimoo Rasulullah waaw juri daf batu ne baatu kalimatullahi ngóobe de mhm. lu waral loolu waaw laa ilaha illallah moom mooy njëkk mooy mujj te képp kuy sikar man moom dama koy faral di wax man dama bëgg laa baatub laa ilaha illallah dama ko bëgg loolu wax dëgg yàlla macha mhm. allah dama ñëw léegi sama sama waaj moom xam naa miinatu leen mais tey moom xam naa moom tey moom fii ñu ne daanu ndax dama boole ñaari ndaanaan yoo xam ne euh, macha allah donc jëri yow bu xam ne nii borom baax. ndeysaan wàll loolu am na moom Fall. li ma ko wax laa lay wax. Mm-hmm. gannaaw bu ma la bàyyee nga présenté ba pare. Mm-hmm. bëgg naa ci ki nga xam ne di borom mu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké. a'uzu billah bismillah inna waliyallah bi bari barakati Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni maa ngi siyaar bu baax a baax mbokk taal yi di leen wormaal di leen jox seen wàccuwaay kenn ku ci ne maa ngi niru si si tur ak sa sant ñëpp nag maam xam nan ma si si maam si turu Baye Talla waaye réseaux sociaux yi ñoo gën moo xamee si Talla Kara baax Talla Kara baax soo ko déggee élément Seydina Ousmane borom baax la élément si Ousmane Borom Baax Seydina Ousmane Borom Baax mam kuy wajuram Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreni Cheikh Ahmadou Kara Mbacké mom moom Seydina Ousmane mom mam Tierno ya mam Fati mba moy wajuram bu mam bu jigen mom Ndayan Awa Balla Cheikh Mod Awa Balla kon manam koku dadi mam maam paaka ñaari bor fuka dage. neex lay dagge non loolu daal waaw ko mooy Seydina Ousmane daal macha allah. jëriñ ko léegi léegi rek dama lay daal di daal li nga xam ne tamit gars yi ñu ngi koy xaar ci yow xanaa di sant ku tedd gi rek ñoom minante ñañu waaw li sama gars yi waa li ñoom yeneen nañu baax a baax kon bismillah rek ñu fas yéene sant ku tedd ki. shukran ya ahmadul xadim yàlla na ci ñun ñu yeesal ak cant ñun sunu xol sedd na shukran ya ahmadul xadim yàlla na ci ñun ñu yeesalaat ak cant ñun sunu xol sedd na gorsu waaye kenn du jàmbaar yow Cheikhul Xadim teewul ñu ñëpp yendandoo si sa keppaar balaay sa raggi nga sunuy gàggi xol defal ñu cib leer kenn ku ne si ñun guddi mën na bañ ay leer bu feesee si dannu dafay luur di ànd ak xaal dafay dëkke buur waxi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooree ni la yaa sama ndey weccee la ko Cheikhul Xadim yaa sama baay weccee la ko way la ci lay mande ko suur di lay tag binda ko way ni nga def ci man dafa for sama indi jaay wecce naa la ko mënuma xamuma ma ngi ni sama ñap tam gini ngi ni soxna ki dom ñàpp loko ngi ni ñi ñap na lako chehru sa karaoke di ñaw basi si sa dajoor gi cër yëpp ñoo bege sa ba itam na lako akasa nila dame chiman ci man tayewik li nga ko def te ko man samay kharit wecce na lako rabu mama sa ñoti defal nga ma ci lu la hu ñi sant Juuf weccee la ko man mi ma engagé wu bu nit ñi nelaw ma naan xew di lay tagg lépp ni law ma jël lépp weccee la ko kenn du Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ahmadu kenn la jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Serigne Touba Bamba Khadim Rasoul lenn de lenn de ci léegi ma kilifa kilifa plateau bi de <laughs> instant bi moom maa ngi commencé ci commencé dugg ci foo xam ni mais boo gaas bu ñu sol benn grand bu rek tàmmuñu ko gis muy sol grand bu mais mu waaj a toog rek <laughs> donc euh, damay ñëw léegi ci waxtaan bi yéen ñaar boole laaj mais damay njëkk si yow euh, yoon bi li fi nekk bëri na xasida yaa ngi fi bu leen neexoon jàng xasida yam foofu kase mhm. wala cant kase wala da ngeen boole cant beeg xasida mhm. wala tamit ngeen bàyyi ko fi seeti leneen waaye tax ngeen yéen daal déet rek ku tedd ki déet rek cant yi di baatu sikrullahi waa zikrullahi fa akbaru zikru ilaahi fa daa gën a màgg lépp loo mën a gis ci àdduna ñun nag maanaam mën na noo wax ni danoo nàmpe ci xas day nàmpe ci zikrullahi parce que maam monde entier xam nañu kuy Cheikh ci Ngom naar fal sam nijaay la fu ñu dem dañ koy tiitaroo moom day yëngu si xas day day yëngu si zikurulaay kon amaana ñun te olof njaay daam lu wax picc bu juddoo si ab tàgg bu naawul jaaxli ab mbokkam kon maanaam ndokk ñun lii rek lañ mën a nekk zikru ilaahi bi di si sant bu baax baax ku tedd ki cheikh ahmadou karam mbacke noore ndax ni ñu mel lepp mom la lu nga yag lu nga yag fowé la wala li nga xamna nga judd fekk fi wala dafa doon li nga xamni da am bëgg-bëgg bi rek nga ni xama tabbi maanaam wax ni lu ñu yag di bëgg la mais tamit lo xamni dread la ci ñun buy daw sama wajur bu jigen soxna ndey mbéyta ngom jàmbaari ousmane daf ma daan mam maam di sikar di jall ji ci borom daru di bot ma nekk ngay aw mën na nek lepp <laughs> waye dal lepp rek mal ko tedd ki la dal ndax maam bu ko neexon def nu lenen su ko neexon def ñu ay mbeur su ko neexon def ñu ay lenen mais ndok bim ñu sikar katu ñu yëkkati baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. amoon ci loolu njëkk nekk laata nga ci dugg. sikkar rek laa xam. waaw sikkar rek moom laa xam. texte yi ngay faral di ko di ko di ko mhm. ne birit la leen gars yi tax di tuddee. Mhm. naan ci coréen yi moom seen cant birit lay doon. waaw ndax dañu si tàggat. birit boobu nag moom dama bëgg mu leer tey ndaxte bëri na ñoo xam ne naan birit te birit boobu noonu. Ya, danaka xamuñu ko de brit ma moy sikar bu saf yalla sikar bu saf maam sikar bu saf yalla brit nga yëkëti ko ba gaay diko dégg mën nga ma ci ñamal lo xamni day eh, nek 30 secondes rek la ilaha illa la la ilaha illa la batula ilaha illallah moom la góor yàlla yi rawee gay aw nuri ni la ilaha illallah la ilaha illallah batun la ilaha illallah moom la góor yàlla yi rawee lo Usman man athatalo wa huwa iza yuratilo kitaba mo del azami am léppay ku tedd rek sa mu tangé mom moom kenn du leen téye waaye bàyyi ak man rek loolu moy bi moy moy la fahu akbaru donc du birit mom du du ñew rek su mbax lo bi gaay yi kii koy man dama won sax loolu birit dama ñew gis gaay yi dugg ci mbëkk fi gaay yi wé faal waaw waaw waaw waaw mam ku nekk ak ses sir rek uh-huh. soo demee si paale uh-huh. zikar nun koy non non koy da défé té da ak soo demee si baydaaru yi zikkar nan koy defe nan ko maanaam sentir noonu nan koy defee maanaam te am yàlla ça dépend maanaam si yëg-yëg bi rek yëg-yëg la rek. lépp yëg-yëg waaw. si yëg-yëg boobu ñëwee si jëwriñ bi nga xam ne moom moom daan naan la yow ma waaj rek jëriñ li ma li ma li laaj léegi léegi muy jëriñ taala maanaam njàng bi hmm. bëgg naa xam kañ nga dugg ak loo ci dugal waaw sikar si man moom bi ma ciy dugg tout tànk bu ndaw laa xale bu ndaw laa ndax mën naa wax ni damaa dama dama damaa gimmi rek nekk ci sikar bëgg ko loolu wax dëgg yàlla sama sama yaay jël ma yóbbu ma ci benn daayira waaw ca ca ca warak waaw warak waaw région de Louga waaw waaw jël ma yóbbu ma foofu ci benn daayira foofu daayira boobu nag fa laa nekk daayira boobu paa leen laa fa doon sikar Paaleen waaw Paaleen. waaw Paaleen am na sikaram. waaw. bokkul si sikar comme sama jëwrin bii ni ko doon yëkkatee léegi rek. comme ça Paaleen mën ngaa wax ni. layla ilala borom ndigal yàlla na ngay maam maam seera faal borom si kore comme ça boobu noonu quoi waaw. mooy jàng Paaleen mooy jaar waaw. mooy mooy mooy mooy mooy Paaleen. waaw léegi nag bi nekkee foofu nag nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa ba mu yàgg. 2008 sama sëriñ bi ma lay wax Cheikh Ibra Fall Mbaye samp benn daayira bu ñuy wax Noorul Xudaa Noorul Xudaa boo ko déggee mooy leer gu ànd ak njub waaw waaw ak njub léegi mu ñëw samp fa daayira Noorul Xudaa léegi nag ma ñëw ci sama sëriñ ci daayira Noorul Xudaa ma falaa nekk nag nekk fa nekk fa nekk fa ba ba di sikar comme li ñuy wax kaak waaw waaw comme sama jëwri ji li mu yëkkati léegi rek waaw kàq boo ko déggee comme comme comme comme heure Cheikh Modou Kara rek comme genre heure yooyu loolu rek waaw. mais Paa Leen dafa am euh, kàq dafa man ñaar yëpp mën naa ndax yàlla dafa def <laughs> la ilaha illallah muhammadu rasulullah ilaha ذو الأرز والجبار لبب بالمرد ما يسبيككم sabiga kumbafalo. saaxi saax saaxi saax yal na Yàlla aar njaboot ge saaxi Saliwu njaboot saaxi saax saaxi saax yal na Yàlla aar njaboot ge njaboot ge Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah ay ay waajire yéen yàlla na ma ko classe ñuy ngeen wax moom. Hmm. naa moom sama lool. ndeysaan moom aw rek laa koy may. ci kàkk yi. Hmm. Hmm. di cant bokkul. waaw bokkul bokkul waaw bokkul comme comme comme kàkk mooy lii rek li ñu yëkkati léegi rek waaw léegi nag damaa bëgg dem ci sama sëriñ waaw sama sëriñ bëgg naa fa dem ndax lépp moom la wax dëgg yàlla waaw Cheikh Ibra Fall Mbaye borom Nourou moom laa doon wax léegi lépp moom la waaw fa la waaw ah, <laughs> waaw baax na waaw. dafa am lu ma seetlu nag. Hmm. Euh, euh, Rosso nga nekk. waaye damay faral di gis sa statut yu lu bëri lu bëri saa su nekk ngay génn lu bëri dem dem ci événement yu bëri yi. Hmm. loolu noonu tur la wala li nga liggéey la wala loola ay nit di mettre en rapport ak ñoom wala li nga mën la loo xam ne rek moo lay lancé. lii moom lii moom li fi moom moom moom fi nekk nii yàgg bàyyi taxaw nga leen leer hmm. man moom sama koor moom fi nekk nii toog naa fa ndax <laughs> déet waay déet waay waaw loolu sant la rek sant la rek ndax maanaam comme comme comme baatub laa ilaaha illallah doon wax léegi soo ci nekkee moom muy sikar soo ci nekkee ba ñëpp ràññee la ci ba di la woo kon kon loolu sant yàlla la ndax ñun moom mën naa la ñun moom danoo gimmi rek wax dëgg yàlla nekk ci sikar si danoo gimmi rek nekk ci sikar si ba léegi ni ñoo ngi ci sikar si kon loolu sant yàlla moo taxit Euh, ndama woon ko tiitaroo woon ko waaw mais ñoo ngi sant bu baax ndax ñoo ngi ñuy woo fu ne fu ne ñoo ngi ñu fay woo ndax barki rek lañ jógee benn festival festival salaam Louga waaw dëgg yàlla kon lool sant la ko sant la bu baax. alhamdulilah waa waa waa waa waaw ba waaw def lu am solo loolu moom dëgg la waa Ross man nag dama fa yàgg trop dama fa yàgg ndax. man sama mam mo ngi ros bejo ndax sama mam bu jigen mom lan ma joxone bama féré ñu jox ma sama sama mam bu jigen sama mam bu jigen yor ma bima yoré nak euh yalla nako yalla yeureum sax ndax ko na fi fan yi ni yalla nako yalla yeureum wa ta te te ko adena wa deug yalla mo nu yar lu nek ci ñun mo nu ko def wa wa ñu lolo tax nag wa ros bejo looloo tax ñoomi ñu japp ñu ndax de ba nekké xalé ñoo nga fa. ñu teeñu baax ci ñun loolu nag waa Ross Béthio ñu ngi leen sant bu baax wax dëgg yàlla ñu ngi leen sant bu baax. cant ñi euh, yi wala suñu rakk yi wala ñenn sax buñ ko sañee wax di ko di ko defee est-ce que est-ce que jotul tey ñu indi ñu indi démb te loolu je pense que bàyyi sax ñu ne ñu après est-ce que jotul ñu indi cantum démb ñaari galañ ah, ñaari ñaari galañ benn galañ benn galañ waaw إلا الله لا إله إلا الله مالك الأخ المبين

wa man mom jangum démb sax man na la man mom lay jang man mi ndax man eri mo fi sikar buma nekk ci cant mom lay sikar wa kon man na wax ni kon man jangum démb laay jang te lol nak moy deug ndax baatub la ilaha illallah moy ñeuk te moy muju yeneen ni ci dess yep ay foola wa kon sama mbok sikar kat yi ma ngi leen wax ni leen nanu nanu nanu top la ilaha illallah dal la ilaha illallah lu am solo la lu am solo la ci sikar kat macha allah jëriñ jëriñ baytaal mu mel mu mel damay ñëw rek ci ci li ma ko wax léegi léegi mhm. waaw faral naa dégg seen njàng moom xas day mhm. ñu ëpp maanaam duñ leen duñ leen duñ leen recommandé la muy ndigal wala li ngeen jàpp ni moom lañ moom ngeen war moom ngeen war a teg dañuy tënku rek si ndigalu Cheikh Ahmadou Karam Mbacke Noreyni Mam di gëstu bu baax a baax day ak wolofali mhm. parce que mam jànkat yi bari na lool sax waaye néew na ñoo ñoy gëssu xass de wala wala fali parce que ñom rek ñoy jang xass de wala yi ñu na mom dañ dañ ci am digal bu baaxa baax pour ñu nekk ci da so xolé Cheikh Ahmadou karam Mbacké ni maam bëgg dimbali jam ñi motax muy jël xass de diko tiant melni comme ay bax comme ay euh bu naafiq du genre. jël yooyu maam di ko jàngaat indi ko si cant gi pour maam gars yi déglu xasida gi di si jàngaale ndax ndax jeunesse bi léegi ñu déglu cant sax moo gën a yomb ko ñu déglu xasida yi jël benn xasde di ko jàng moo tax Cheikh Ahmadou Kara Mbacké noonu xam loolu jël maam xasida yi def ko si cant gi ndax ñuy ñuy déglu loolu noonu. dama mel ne sax sa ñambaara tax dem naa màggal Touba bi passé gis la borom baax toog ñu congam la ci kaw ngay ngay jàng am solo. waa sant rek sant rek ak sellal sant ko tedd ki rek ndax lépp moom la daal waaw te ban sa jug jugee xalaatu ni sax ñun tingam nañu si kaw. bak Cheikh cheikh al Khadim. waaw moo ñu ñor daal barke borom daal nga ma wax léegi euh, jëriñ jëriñ Ahmadou laa lay wax donc tey tey boo amoon looy kàddu yoo xam ne nga koy soññ ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci ci mbir bi ngeen bokk ko kàddu lañ lay doon ngir ñu gën a mën ndax léegi cant yi léegi boo xoolee ba ci biir sabar la gën nuru sax li ko cant waaw lu may wax sama mbokk taale yi rek lu may lu may wax sama mbokk taalibe yi rek maam nu yaruwaat ndax zikur laa jaam yàlla la soo nekkee ciblier nga xam lii bii nga nekkat maam lii jaamu yàlla la kon war naa am beneen façon noo fay demee sama gars yi bàkk bàkk maam bàkkat bàkkat yi ñoom ñoo gën a kiis yooyu sax ñoom laa koy jegleel ñu xamaat bu baax a baax ni si zikar ab jaamu yàlla la kon kon kon kon maanaam suñ si nekkee war nañ ko yeesalaat bu baax a baax a baax ak euh, yaru bi tamit ñu tàggataatu bu bu baax a baax. voilà voilà waaw melokaan yi. waaw waaw mbirum. waaw ku tedd ki moo njaboote ñëpp rek. waaw ku tedd moo njaboote lépp moo ta maanaam ñun euh, sikarkat yi lu leen ñuy gis si gi mais dañuy toléré rek ndax ndax ma mbirum ku tedd moo demee noonu. Mhm. gaa yi ñuy mel maam nu leen neex ñii mel ne neneen mais da ngay jël ñëpp uuf ndax ndax maam ku tedd ki moo leen booleek ñoom. voilà tey question bi ma leen bi may passé comme jur yi moom day hmm. a xool hmm. euh, laa leen boolee ñaar laata balaa bu bu noppee hmm. moom ñu ne moom bu bi aw bi moom tamit ñu ne dina mos. Euh, ko defee ñu am benn duo wax xam ne mën nga tijji donc question bi lay posé muy yéen ñaar ñëpp bu fekkee am nga leen loo war a wax lu ma laaju nga wax waaye lan la la Sëñ Tuubaa <laughs> yaa ngi laajul garaaw sëñ Tuubaa lu ma defal. defal ñëpp nag mais ku si loo xam moom saa su nekk war nga doon waaw moomee baatu urus rek maanaam ñu ko siy sant. Mhm. may ñu ay baatu urus rek ñu ko siy sant. Mhm. defal nañ lépp. barke seen Bamba bëgg sëñ sëñ Bamba rek loolu maam lu la ko tedd ki di defal la. Mhm. bëgg sëñ Bamba. rek maam lu la tedd ki di defal la loolu sëñ sëñ Bamba di defal loolu daa yaatu papa bak sëñ Naasmaan loolu daa yaatu loolu daa daa yaatu lu bëree bëri ndax monde bi la ku tedd ki. faa nga laal ma ci ci ndaamal daaru sama waaj kenn du moom bu ko defee jëriñ bi daal di jël tëj jëriñ tëj ma njaay nag ma may loo rek. ndeysaan. may nga ma ko waaw donc ndaamal daaru faa faa nga laal ko moom. kuy sama. na mam maryaama sey cerna baabulaahi kuy sa baay borom daaru mam cerna baabulaahi roy dundurok piir cerna baabulaahi baabul janna baabulaahi baabul jannati ndama ndama wóor mam cerno babulahi yaay ndama la ca aljana sikore sikore dëgg bu bari leer sikori mamare ngay walangaan guway guway nu nu way wayal maam Cerno Faatila di way guway wayal way jox nu nu way maam Cerno Baabu Laahi laay bege ku sopp borom daaru loxo ca kaw ñoo sopp borom daaru loxo ca kaw ñoo sopp borom daaru loxo ca kaw ashabul jannati mabrum Borong, Borong, selebrum ja ra ma maa ngi jégal nag pas a parce que dafa am lo xamni ni ko guéné si chèvre maam ñorogul ñoo ngi si di di liggéey bu baaxa baax waye dama ne suma ñëwé fi ci dina ci chomp tuuti rek djegal ko chèvre man jaay ñoo tuub de. la

Amadou Fall Sayar Ndiaye Biram Njabe Ngaca Ngaay Goda Goba Yulala ya Fall Cheikh Ibra Gagne moro me jere jërëjëf borom Touba lol mom Abdoul tënk la rek kon ah sama xol seet na hmm. man dama am ku du borom daaw. moo tax bu ñu ko laalee rek. ndeysaan waaw macha allah. yal na sa jàmm yàgg. waaw yal na teg loxo. li ngeen di séntu tamit ci liggéey bi moo ci liggéey ndaxte daa yombul bu la neexoo nekk ci leneen waaye ngeen jaayante bàyyi lépp jox seen ndaw lépp suñu tubaab si suñu tubaab dafa ni mm-hmm. <coughs> mm-hmm. ku ma jox ndawam ma teel a sa mag ku ma jox magam. ndaw bi aussi tamit téye na bu yàgg laata laata laata nga koy jox moo fekk na mu téye bu yàgg waaw ndax li mu waxoon rek ci la nekk moom ñëwam moom dafa ñëw rek ngir am ngir am lu muy dimbali muy li mu safa nawaytu maay jaddu surtout xaraa way ni ahmadu waaw donc am na solo joriñ fa laay daanale maanaam lu waaw li ma Sëriñ Tuubaa defal moom mooy comme li ko li sama joriñ ji toog waxe léegi Sëriñ Tuubaa moom lim ñu defal dafa bëri ba tax na mënuñu cee wax lii la ñu defal lii la ñu defal lim ñu defal moom yaatu na bëri na lool wax dëgg yàlla waaw. mais am xam ne di lii ma wax léegi rek. waaw lépp waaw wallaay wallaay lépp moom la waaw nga koy yëg lu ma waxoon sëñ Mor mooy rek ñi ko ñi naar ba sa gànnaar sax hmm. war na war na ma gërëm ndax lépp moom la ak fu mu nekk wallaay lépp moom la moom la mais am na loo xam moom loo ne macha hmm. waaw Serigne Touba moom mën nañu wax ni tey jii euh, moom moo moom moo tax waaw ñuy ñuy sant bu baax moom moo tax ñuy sant bu baax ndax tey jii bu moom am naa yaakaar ni waaw danañ danañ danañ tudd leneen ay yeneen waaw kon moom moo xeex jaayante ba tey jii ñuy toog di sant di tudd laa ilaha illallah kon loolu rek sant la alhamdulilah. waaw dama bëgg nag bala may bala may tàggoo ma ma ma ma ma laal ci sama sëriñ ndax ndax ndeysaan lépp moom la lépp moom la waaw kooku moom dama leen koy ñaar rek ngeen jàpp ci sànq laa ko bëggoon a def waaye nag maa nag maa kii. Cheikh Ibra laa xam ni ku ko yaakaar tey nga giseek moom Cheikh la xam ni lu ko yaakaar tey nga dajeek moom sëñ Xaadim Mbay ku ko yaakaar tey nga gisee moom waaw waaw ku ko yaakaar yaa gisee moom laa xam ne ku ko yaakaar tey nga gisee moom laa xam ne ku ko yaakaar yaa gisee moom tey nga gisee moom tey nga gisee moom giseeg moom tey ñu giseeg moom tey nga giseeg moom tey nga giseeg moom bàyyi seen Xaadim Mbay ah tey nga giseeg moom Cheikh Ibrahima Mbaye laa xam ne ko yaakaar tey nga giseeg moom ibra goranga Cheikh Ibra ilala layla ilala ilala borom noorul goranga ಕೊರಗಾ ಕೊರಗಾ góor ni ngeen <laughs> waaw kii ziare bu baax waaye xam naa <laughs> waaw ñun moom aw ñoo gën a garaaw sax aw na yàlla may damay ragal <laughs> jëwriñ ñu ngi ziare mbokk taalibe yi wér ñu ngi ziare suñu gaay yëpp rek di si ciital suñu déwrin amet moom moom ndeysaan fu maamee programme rek dañu koy wax buñ si mënee teew tamit waaw teew sa buñ sa mënta teew tamit wax moom daal xam nga rek si jekk ak daal mais moom moom wax dëgg fa yàlla baax la te taalibe am am am na taalibe daal ñun moom dañuy santati rek bu wér a wér a wér war dañuy sant rek waaw far moo xam nga bu xool bi feesee rek dóorul mën a wax ndax instant bi li gars yi dóor rek instant bi xool bi sax dañoo forcé nii di wax rek mais mënatuñu sax wax gars yi yàlla xam nañ sax wallahi barke alxuraan bu dee dëgg neex yàlla rek doylu ma hmm. waaye waaye xam nga fi moom boo fi toogee dañ lay diriger <laughs> gars yi fee moom ñooy diriger waaw te ñu ci weeru koor surtout yéen ñi war a dellu donc xam naa gaa yi ci loolu bàyyi xel gars yi bëgg nañ loolu yow yow yow yow soxna Mbaas moo nu boole. ndeysaan yàgg na war na ma ay at ay at ak un an. lu wér lu wér mu toog ma Cheikh. Cheikh Ahmed da nga war a invité. ma ne incha donc gis nga mos na ko mos na ko fi programmé mu échoué. Mm, waaye tey dégg na loolu ci dérangement beeg déplacement bi jógee ba fi nga xam moo di Rosso ñëw seet waa Sen TV. di bégaat tamit ci baytaal bi nga xam ne moom sama doomu bàjjan la sama doomu lépp la moom sama sama cousin la sama jumeau la sax laay wax. muy koo xam ne ku jàmbaar man saa yu jàng rek sama yaram day daw ndaxte da koy jële ci xol bi tamit je pense que eh, di ngeen di ngeen fasante coloré incha allah ndax ni ngeen li ngeen def nii xam naa bu ngeen bu boo xewlee rooso woo ko fa hmm. moom bu xewlee ndata mi woo la ndax loolu mooy yoon dafa di dox hmm. waaw di gërëm tamit bàkkat yi nga xam ne ñoom ñii ñii macha allah neexal nañu fi lool waaw ñoo ngeen gërëm bu baax a baax di gërëm tamit Mandiaye hmm. moom ñu nekkoon ci caméra bi ci ginnaaw mom teg na ma pression ñu mu ëpp rek moom heure ndog bu waaj pala sant. ñu heure ndog di waaj jot. di gërëm tamit ki nga xamni modi gas El Salvador. mo dafa waroon ñëw bokk ci affaire bi ak ci bisu la waron am ci ay ci ko indi mais dafa mu taw débat mais graw mom mo nekkon ci flan bi yoreel beneen caméra bi cheikh bi nga xam moy cheikh prot mo moom ma maa ngi bëgg baax mom mi nga xam mom mo mo moo nekkaat ci ginnaw di di di di di di daanu leer rek <laughs> di gërëm tamit Badara Badara geey moom moom ku ko xam-xam ni taalibe Sëriñ Tuubaa la Sëriñ Tuubaa rek ko ñor mu ñëw mu ñëw bokk ci mbir bi waaw bu ko defee bëgg nañ loolu di bëggee nag képp koo xam ne rek yaa ngi saan li ma sol ni Cheikh moom ko jox moom ñoo sol ñoo sol waaw donc donc di bëggee ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni rek daan joxaat tamit euh, beneen beneen numéro incha allah bu defee di gërëm ñëpp di sant ñëpp di joxaat gars yi dig ak daje ci yeneen numéro incha allah salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh